gan gi na Keita nekk ku jiite association bi ëmb njabootu ñi euh, loru ci bateau le Joola euh, sëñ bi Keita ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. soxna si mhm. tey mooy def ñaar fukki at ginnaaw bi bateau le Joola suuxee muy xew-xew bu metti euh, ñaar fukki at ginnaaw loolu justement naka ngeen di koy dundee tey. waaw métti rek. parce que am sa euh, jegeñaaw muy sa doom di sa papa di sa yaay euh, say tante euh, am ñoo xam ni ñi ñi ñàkk yaakaar lañu tegoon ci ñoom ñoo doon seen lépp ñu xëy suba rek woo leen ne leen bateau bi suux na ñu dem nañu ñi gis nañ seen i koor ñi dee ñi porté disparu lu métti la loolu la ñuy souffrir ñaar fukki at ci ren vraiment lu doy waar lu métti la Mm-hmm. yéen a ngi ci Ziguinchor jamono ji euh, di euh, bëgg a fàttaliku xew-xew bu tiis boobu euh, naka ngeen nar a tëralee xew-xew bi tey ak lan la ci état bu Sénégal am comme taxawaay. waaw ñu ngi xaar fi mu ne arrivé ministre des forces armées Sidiki Kaba Sidiki Kaba ko war a présider avion bi ñëwagul décollé na Dakar nag buñ fi jógee dañuy dem directement Kantène ci cimetière yi ñaanal leen bu ñu wëlbatikoo dañuy dem. Euh, ci euh, port ba pour cérémonie officielle bi après dañuy dem gouvernance tëju nag pour waxtaanee yu bëri xam ne ay manquement lañu mm. waaw li ci gën a metti moo di euh, soxna si ñaar fukki at ci ren état du Sénégal lan la def mais dara lañu fàtte famille yi faat xamuñu leen ñun dañoo bëgg a puus ne fàtte leen duñu fàtte parce que ñoom bu ñu defee seen tax tooxi doona ba pare bëgg na nañu fàtte ndax ñuy fàtte bato bi mënoon naa bañ a suux ci lenn yomb na moteur yu paan ñaar li muy jaar matul un milliard quatre cent cinquante millions ñu ni defar leen ko parce que pression bi c'était forte en Casamance ñëweetuñu woon di waajé ci oto yi parce que rébellion baa ngi fa di arrêté di leen faagaagal alors au lieu ñu def ko ñu ne dañuy dem réparé colmaté ko bi ñu dem waaju inaugural bi pour wane population ni bato bi na mën nañ ci jël ministre des forces armées ministre des transports ak autorités yu bëri ci biir ba loolu ñu koy def parce que ñoom wu ñoon wax ne kii parce que daneen laaj boobaa li ngeen def ba oto oto bi nekkul ci yoon ñu ñëw di ko woon commandant bi ko doon a wax ki ñu si ñu ko bu def reculade foofu rek laa ko mere yàlla na ko yàlla yërëm ko àjjana mm. parce que waroon na courage am leen ne man du munti moon ngeen may dàq sax naa ko wax waaw d'accord kon état bu Sénégal ngeen wéy di joxoon ci mbir mi tey jii euh, ban taxawaay la am si euh, anniversaire bi ndaxte dégg nañu ay rumeur ñu ne état deful dara dara ba samedi en tout cas dara duggul woon comme jàppale leen ci ci xew-xewu tey bi. man du rumeur je confirme hmm. du rumeur dama koy confirmer dëgg hmm. laay wax ni joxewuñu dara tey ji tey ba dimanche laa la wax. Hmm. porte parole bi xam nga ñoom ñoo nekk Ziguinchor ñooy dox lépp. ba moom ci la ñëw ci guddi gi wax ma ne jot naa cinq millions boo xam ne duudu kam jox. Mm. wa laajaar naa ko léegi ci kii mu ni daal en tout cas Doudou Ka moo ko jox mënuñu confirmer ko donc gouvernement bi defu ci dara. Mm. dañ seetaan bàyyi ñu. loolu ñuy wax na ñun vraiment ñun gëm nañu yàlla ñu jox ñu joxuñu daan jàpp suñu anniversaire parce que mm. ñoo ñàkk ñoom ñàkkuñu parce que déggoon nañ fi Idriss Seck wax ju ñaaw ju waxoon ak ba ñu wàdd recevoir ak ba leen collectif bi di di dal seen kaw ba ñuy gaz leen par la police lépp ngi fi dañu bëgg ñu génne parti bi renfort lu ñuy nëbb ñun ñoo deere ñoo bëgg def suñu dëj lan la ñuy nëbb nañu wax seen dëgg. génne ko lu tax ngeen bëgg ñu walbati bato bi loolu lan lay soppi ci. xëy na li muy soppi mooy dafa am lu nekk ci biir te dañ koy nëbb. mooy lan man ma samay renseignement war na ma ni bateau bi sax da def ay trafic d'armes. Hmm. yoo xam ne dañ ko daan dugal ci bateau bi ak yeneen yu garaaw a garaaw a garaaw yoo xam ne ay renseignement wax ne bëgguñu dégg ko donc il faut mu génn ñun soxlawuñu yooyu l'essentiel même bu ne ay yàq lañ ñuy woon nañu génneel yooyu parce que musée bi ñu koy tabax Ziguinchor hmm. te bu ñu paree bëggoon nañu am nañ place bu ñuy teg pour bateau bi ñu teg ko exposé ko foofu hmm. léegi dañ ko defal depuis Itapuwa ba léegi mënul sori ñu ngi préparé nekk décembre mu pare pour inauguration mm-hmm. mais loolu respect la ma ma mémorial musée bi place du souvenir ñu defoon pose première pierre Wade depuis douze ans dara sottiwul teer teguñu fa mais loolu daf ñoo bëgg a ñàkkal fayda mais loolu mooy lan mais yooyu dafa war a dakk Macky Sall mooy jiite réew mi bi bi bi bato bi suux mi ngoon ci bi mu jël la post ministre de l'intérieur premier ministre président de l'Assemblée tey pourquoi mu mais ñun du ñu fàtte combat bi dañ ko continuer parce que ñun ñoo ñàkk te mi ngi metti ba léegi ci des douleurs man mi wax ak yow min mii sama ñaari doom laa mag Ibrahima Keita Djibril Keita soixante dix huit la judd kii ba muy ba ñuy suux maa ngi Italie indisponibilité waaw ba may bu leen ñëw toog leen toppatoo seen jàng at boobu la ñu am seen baccalauréat yaa waroon dem ne dañuy seet seen yaay hmm. alors ñu wax ak man ci tabaski ji jeex na ci laa mujj wax ak ñoom sinon ñu wooma rek na bato bi suux na sa ñaari doom ci la bokk mais boobu kan moo ko mën a posé ah, yàlla def na ne am naa soxna su jàmbaar ju xam ne vraiment muñ na ko te supporté na ko ba ni gën a fii mhm. waaw tey euh, ñu wax ne dossier bi classé nañ koo xëy na ci wàllu yoon dara mënatu ci am est-ce que yéen da ngeen nar a toog bàyyi loolu wala da ngeen fas yéene sumb combat judiciaire bi wéyal ko ci kanam yoon waaw classé ko ko classé ñoom ñoo ko classé de est-ce que yàlla rek la nguuram sax di yegg du doñ mais nguur gu dul doñ ana Ablaye Wade demul ki fi nekk yàgg-yàgg dafiy jóge bu deful dara kii ñëw dana ko def loolu nag nañ ko dana ko sóoraale kii ñëw dana ko def ñii ñi def loolu ouverture du dossier judiciaire dañ ko def procureur bi fi newoon bu amoon dégg ñaam muy papam la yaay wala doomam bu waxee noonu waxee naan commandant bi hmm. parce que commandant bi mënul tontu commandant bi bokk na ci porté disparu nañu seetaan seet bokk bu ñuy rendre justice nañ ko rendre ngir seet diggante seen diggante ak yàlla na yàgg yàgg dañuy deet nañ laaj loolu mm-hmm. xam nga la am na ay ñan ñi jaay ci jaay billet yu bëri ki nga ko joxoon kooku il pas responsable ñi nga toog colmaté moteur bi incident bi amoon ci bi ñuy def waasi inaugural bi li tax ñu nëbbu ko ñooñu ils ne pas responsables le ministre des ak le ministre des transports nañu bàyyi caaxaan yooyu le dossier sera France ñëwoon na ci di ko def mais ba ñu demee ba ci biir ñu def noolu yi xam na lan la fa pression bi jógee mais taw làqatu taxu rëcc de yàgg yàgg danañ feeñ. Mhm. waaw tey lan ngeen di xaar si si état bu Sénégal. bu li ñuy xaar ci état bu Sénégal mooy vingt milliards yi ñu attribué woon ba ñu def indemniser ba mu jeex des na six milliards. Hmm. na ñu ngi ci compte yi moomuñu ko. compte kan la ne bu ko bu ko kenn daal. six milliards fuñ ne. pour famille xam nañ ko compte yi xam nañ ko je ne dis pas de compte xam nañ numéro yëpp. Mm. nañ ko génne jox ñu ko pour les familles. au delà de ça aide yi doon ñëw au début du naufrage ça fait huit cent soixante deux millions et quelques mais nañu ko jox. tout dem àll talaata wala bu mën nañ ko génne jox ñu ko ñu am suñu indépendance parce que dañu bëgg mettre une fondation. boobaa aura des bonne volonté yu ñuy dimbali ba ñu mën a soutenir famille tey dem demal ci kër yi demal ndar demal njaareem mais tey da nga leen di yërëm ñu ngi jooy guddi ak bëccëg amuñu dara dans la pauvreté totale ñu leen ignorer ah tey 43 milliards ñu ngeen di ko distribuer fàttali ñu leen ah dinañ dana fa faalewul leen toppatoo xamuñu sax ñoom ñu ngi fi. mais loolu mooy a ak yeneen ak yeneen yeneen tey cérémonie bii ñu koy def muy vingtième anniversaire ñu wax ba sonn mu bañ ko déclarer férié. Aminata Assome Diatta l'ancien ministre du commerce muy il se permet de dire que ni euh, c'est pas normal ñu koy férié parce que y a trop de fêtes fériées loolu na ko wax moom te muy dëkk yoon wu gi boo xam fekkee politique moo ko dugal ci loolu ci génnee ñun loolu mu wax naqaru lañ ko metti doon ko loolo lool beneen bi mooy Macky saal def na fukki at ak benn ci nguur gi a euh, wax tey wax naa ay déclaration partout no ko soxla lañu musul teg tànk Ziguinchor onzième anniversaire tey musu fi teg Abdoulaye ñu ne fi ñaari yoon yaakaar nañu nag ne euh, bu ñuy inauguré le mémorial là bi ñuy tabax en décembre dana fi taxaw parce que loolu moom vraiment loolu man je dis j'appelle à tout le monde muy Ousmane Sonko muy ñëpp na ñëpp taxaw xool parce que ñun politique ñu dañoo bëgg ñu jox ñu cër bi ñu war xam ne ñun ñoo ñàkk te li ñàkk bëri na naufrage bii mu xaw Sénégal mosul xaw ci àdduna bi. Mm-hmm. benn yoon boobu moo xew ci Sénégal bi mm-hmm. waaw. alors euh, ngeen di xaar ci kon état bu Sénégal mu jëmmal euh, bés bi euh, wante ñu bëri jàpp nañu ne tamit xëy na yenn saay dañuy mbubboo ñi nga xam ne ñoom ñooy pipi yi te ñoo ñu tey nekk nañu mag ñuy wéy di laaj ay koppar lan ngeen bëgg réellement est-ce que da bëgg ñu continuer di leen jàppale état bu Sénégal wala dafa am càkkute foo xam ni moom ngeen soxla foofu tamit bu ngeen ko loon dina baax parce que am na ñu leen di ngàññ si si ah. souvent seen communication di di laaj di laaj xëy na xew-xew bi. ma ni pupilles yëpp majeur lañu. Mm-hmm. bañ koy bañ leen di jël en compte loi bi dañ koy def loi ko ne ça va partir à partir de 2006. Mm-hmm. bon ñoom biñ leen jël en compte ñi nga xam dañu nekkoon pupille ba fekkee majeur kenn jëlu leen en compte on les a laissés en rade. Mm-hmm. mineurs yi rek la ñu jël en compte loolu est-ce yoon la. tout récemment lañu lañ ko rectifier pour les prendre en compte. kon da ngeen ñu jël ñëpp mais mais mais loolu mooy man est-ce que ñoom ñaanu nañ yàlla vraiment seen i waajur génn àddina mm. ñàkk yaay ñàkk pak wala nga ñàkk pak wala yaay mais yàllaa ko def ñu ak seen négligence coupable donc dañ leen war a jël ñëpp en compte tey ji tey wax dëgg yàlla tout récemment Ziguinchor barki dem la leen doon célébrer leen remercier parce que presque ñëpp ñi ne woon en classe de terminale am nañ bac ñii BFM ñii at mi nañu ñu récompenser leen mais li ñu nañ leen former ñu am métier. ba pare ñu jox leen liggéey. waaw ñu jox leen liggéey loolu la ñu soxla ci ñoom. waaw ñaanu ñu ko defuñu ko parce que lu war la dañ leen war a jàppale bu baax a baax a baax communication bi ñu def ñun wutuñu xaalis defuñu dara. Hmm. ñu kenn ci loolu ñuy def dañ koy wax ci kaw ñëpp dégg ko nañ leen def vraiment de force ko ñooñu réussir seen bac ñenn certains Wade Wade avait promis ça mais nañ leen jàppale loolu mooy yoon loolu la ñuy laaj voilà. Mm-hmm. na Cheikhna taa ñu bàyyi la xam nañ ne yaa ngi ci xew-xew bi yéen a ngi tu ministre des forces armées. ñu ñaan yàlla mu gën a giifal xol yi rek euh, ba xëy na euh, métit wi daal di wàññeeku certes fàtte fàtte moom du du mën a yomb wante nag yàlla mun na dalal xol yi ba xëy na euh, lu bari ngeen mun ko jéggi ñu ngi lay gërëm en tout cas di yeesalaat suñu suñu njaal si yéen ak di leen ma saw bu baax a baax. jërëjëf soxna si li ma ci bëgg mottali rek li ma ko waxul moo di. Mm. ñun dañoo teg fële fàtte. waaye gis nañ Abdoulaye Wade ci épo ku avion de commandement bi. Hmm. paat mu def ci dix sept milliards. Hmm. bañ fee def fa mooy deux milliards. gis nañ Abdoulaye Wade bu Tamaro fa fa ah, euh, doomam nekkoon ba mu hmm. lakkee immeuble Tamaro bañ ko waxee dafa solu sax ay daal dafa daw yegg yëpp jël nañ sapeur pompier porte bi ba rëccal kooku mu génn ndax moo gën suñu njaboot dama yëg-yëg boo bu la kilifa réew da ngay bari jàpp ñëpp ci biir bu ñu jëloon seen matukaay yëpp. suux euh, bi dam beneen bi aussi dama ko fàtte wax. 72 mm. heures après am na ñu doon woo di woote appel téléphonique. Mm. pour ñu sauver leen. te amoon de benn navire bu tax taxawoon ci ci port bi break Atlantique bu France nga xam ne loolu rek lay def pour sauver bu naufrage amee ñu mën a dimbali ñenn ñu génn te kenn rek moom mën a jox jël woo leen ci ndigal muy le général Babacar à l'époque mais bañ ko ko waxee dafa wax ni c'est pas important te lendemain mu di di di installer un commandant zone il tombe sous le loi de la sous la loi de l'article 49 alinéa 2 non assistant à personne en danger mais dañ koy métti dañ koy wax loolu def Assome Diatta wax dañ koy métti lu bu baax a baax Macky Sall ñàkk taxawaayam tey vingtième anniversaire lu ñu métti dañ koy wax bu baax a baax a baax a a mm-hmm. nangu bañ ko def périer te gis ko fi dem na fi Bataclan dem na fi fépp di leen def yëpp pourquoi mu bañ ñëw Ziguinchor je remercie infiniment merci beaucoup